Karim ak bokkam ci élection présidentielle yi nag moom magistrat bi nag jàpp na ne koy tuumaal nag du ndaw te itam nag mbir dana ko leeral ca kanam yoon njaw ma ngay woy di de sub xam bi yëglekaay bee ko xam ne nag ci diggante waa conseil constitutionnel ak waa parti démocratique sénégalais moom juge Cheikh Ndiaye daal dinay amal ab plainte ngir lu jëm ci wàllu diffamation ak lu jëm ci wàllu outrage jëmale ko ci magistrat yi nag bu rek dañu koo yëkkatee ngir bëgg a lu nu mel nag jàpp nañ ne duñu ko bàyyi mu sedd nag magistrat bi di ma ngay porter ña ngay dànkaaf waa parti démocratique sénégalais ne bépp tuuma boo xam ne rek daat nañ ko yëkkate jëmale ko ci seen kaw nag duñ ci génnee noonu lépp lu ciy conséquences yi rek ñoom ñi nga xam ne ñoo di auteurs yi nag daañu ko subir yéenekaay bi ne député yi nag ñu ngi waajal ab plénière bu ñu fas yéenee amal niki ëllëg Guy Marius Sagna di xam ne ci biir yëglekaay bi nag ne lépp loo xam ne daal samay proposition la nag dañu koo ignoré waaye proposition yi nga xam ne rek moom mooy tukkee ci waa PDS moom la ñuy ci biir assemblée nationale tribune yëglekaay ne commission d' enquête parlementaire boobee nag waa PDS di sàkku jamono ji nag waa pencu ndaw réew ma ña accélérer la cadence ndax député yi nag convoqué nañu leen ëllëg ci ab séance plénière ñu des ba tey ci cong gi nga xam ne rek ñu koy cong jëmale ko ci kaw conseil séparation des pouvoirs ak lu jëm ci wàllu respect ñeel institution yi juge Cheikh Ndiaye nag moom ma ngay porter plainte ci biir yëglekaay bi conseil constitutionnel di ñaawlu tuumay doy waar yi nga xam ne rek kenn xamul fu mu jugee waa PDS nag lenn rek la ñu bëgg mooy leeraange tukkee ci liggéey bi nga xam ne rek juróom-ñaari sage yi doon nañ ko amal ci lu jëm ci wàllu parrainage yi docteur Cheikh Tidiane Dièye fas yéene naa taxaw jàppale kii du Bassirou Diomaye Faye ni ko Ousmane Sonko sàkko moom Cheikh Tidiane Dièye di candidat la présidentielle nag ma ngay xam ne ci wetu ñi nga xam rek ñoo di patriote yi addu jëmale nag ci équipe nationale bu Sénégal bi ñu éliminé ni démb ci ab tiro bi bu doxoon ci digganteem ak waa Côte d'Ivoire mu soxal huitième de finale yi CAN Coupe d'Afrique atum 2023 coow li nag jamono ji nee na combay ca Yamoussoukro loolee la yëglekaay bi nag di Walf Quotidien xamle Aliou Cissé di coach sub gaynde yu Sénégal ne jongante bi nag ñu ngi ko ñàkk diir bi ñu dugalee bii bu njëkk bi yër leen bi la yëglekaay gaynde yu demoon ci toolub xare fàtte seeni gànnaay loolee nag la enquête yëglekaay xëy fësal ci xëtam bu njëkk ne huitième de demi-finale yu CAN 2023 éléphant yu Côte d'Ivoire nag dal nañu bu baax a baax ci kaw gaynde yu Sénégal Aliou Cissé ne jamono ji nag la ñuy xool rek bokk na ci nu ñu war a doxalee jëm ci suñuy ëllëg Kalidou Koulibaly mi capitaine gaynde yu Sénégal nag ne bëggoon nañoo dem ba gën a sori Sadio maane feelu ko nag ne mënoon nañoo rey match bi bu yàgg nag enfer de Yakoro loolee la l'observateur xëy bind ci xëtam bu njëkk senegal Côte d'Ivoire éliminé na ko ci huitième de finale yi Henri Camara ne du physique du tactique waaye Sénégal nag dafa ñàkk jongante bi mentalement la siglekaay na arbitre bi éliminé na équipe nationale bu Sénégal jëm ci coupe d'Afrique bi ñu doon amal ci wàllu football bés bi le jour ne ivoirien yi kay kaawoon nañu équipe bu Sénégal Aliou Cissé ne ba gën sii nag moom mënul expliquer nan la ñu def rek ba ñàkk bi le match yéenekaay bi ne gaynde yi nag ñàkk nañu seenub jongante ci ab tiro bi bu doxoon ci seen diggante ak waa Côte d'Ivoire jamono ji nag ñëpp sëngeem am lu leen metti Aliou Cissé di xam ne ci biir yéglekaay bi ne ëllëgëm moom leeragul benn yoon jëm ci doxalam ak équipe nationale bu Sénégal Rewmi nag